asiya boobu ci juddu Moussa la gëmee Moussa jàppale ko nee ñu ëllëg ci jabar yonent yi lay bokk alayhi salaatu wassalaam kooku benn exemple la pour jigéen ñi beneen exemple pour jigéen ñi sayyidatuna Hajar bi jur sayiduna ismail waaye bi jur sayiduna muhammad ibrahim dafa am ñaari soxna fekk kenn ki la njëkk a takk muy cousinam ñu koy wax saara mu yàgg ak moom amuñu doom ba ni ko saara di proposé mu takk hajar parce que booba mage nañ ñoom ñaar mu takk Hajar am ceeg moom Ismaayil plus tard mu am Isxaaq ca Saara mi ko amee ci bi suñu borom amee jaar fa bégale ko Isxaaq fa basharnaaha bi Isxaaq wa min warai Isxaaqa Yaaqub qaalat yaa waylata aalidu ana aalidun wa ana ajuz wa hada baali cheykha inna hada la cheyun ajib waaye comme moom mooy jur isxaq kële mooy jur ismail te ismail mag isxaq ëpp ko doole léeg-léeg ñu jotee ismail dóor rakkam moom mënul woon supporter loolu comme seyduna ibrahim tamit dafa xawoon euh, bu ñu mënee wax ragal ragal aawam soxna si ne ko kii mënatuma bokk ak moom kër gi dama bëgg nga sàkkal ko pexe suñu boroom ànd ca ne ko na koy yóbbu fu ñuy wax ardul xijaaz mooy màkkata ren mu yóbbu ko ba biir màkk mu teg ko fa mu ne ko ah, fii nga may bàyyi ci àll bi mu ne ko suñu boroom ma la digal nga toog fi mu ne gannaaw suñu borom ma la ko digal gërëb naa digalu yàlla Haajar ci muñam ak nangu topp jëkkëram ak nangu topp ndigalu yàlla ci la ko yàlla feeñalale biiru zamzam gannaaw bu mu maree xiif di wut lu mu lekk ak lu mu jox doomam ca diggante Safa ak maruwa yàlla jox ko Ismaayil Ismaayil moo dem ba jur Adnaan Adnaan moo dem ba jur Maad mu wàcc ci Nizar ba ci Shaybat Hamd ba ci Abdallah mu jur Sayyidu Sadat Muhammad ibn Abdallah lu ko ko may muñ am nañu beneen exemple pour jigéen ñi mu di sayyidatuna Bilqis la reine du Saba moo doon malikatu Saba moo doon malikatu Saba euh, comme temps bi dafa gàtt te sëriñ bi dafa war a dugg si ci waxtaan wi nañu fexe gàttal ko rekk waaye dama bëggoon tur yi ku mel ni sayyidatuna Bilqis ak ku mel ni sayyidatuna Aïcha ba yonent bi dem ba naan xudu nisfa min hadihi al ñu di ko tuddee sayyidatu nisaa il ak ku mel ni sayyidatuna Maryam ñu koy tuddee sayyidatu nisaa il aalamin wadkur fi lkitaabi Maryam id intabadat min ahliha makanan sharqiya fattaxadat min dunihim xijaaba fa arsalna ilayha ruuxana fa tamathala laha basharan sawiya ak ya ca xew ak ku mel ni sayidatuna xadija ñu di ko tuddee sayidatu ummahatil muminin ak sacrifice yi mu def yépp pour yàlla ak yonant ak ku mel ni sayidatuna fatima ñu di ko tuddee sayidatu nisaai ahlil janna ak ku mel ni sayidatuna nafisa nga xam ne al imaamul busiri dem na ba ci xabroom mu wéy ko ne ko waristi xisaal al mustafa wa ulumahu wa fadlukuma lawla nubuatu waxidu ne ko yàlla dafa waxee yonent bi taw rek waaye su dul woon wax yu gim ko wax yu yéen ñaar nii yéen a yem ndax yàlla ak jikko bu ñu jógee ci ko ku mel nii suñu jigéen yi ñu am yépp xoolal sayyidatuna Aïcha mi jur sayid Cheikh Ahmed Tijani na mu meloon ba jur góor gu taxaw ne inna jamia al awliyaai yadxuluuna zumratana wa yatamassakuuna bi tariqatina mu jur góor gu taxaw ne qadamaaya haataaya fawqa raqabati kulli waliyin lillah ne min ladun aadam ila nafxi fi suur jur góor gu wax ne taabi'una ya'lu ala kulli taabi' wa laysa ya'lu alayhi jur koo xam ne nee na xaytu kaana nabiyu nabiyan kuntu hunaka wali jur koo xam ne nee na yàlla yónni na yónant adama mun jëlit mun jadilun fi tinati yónni na ma eh, jof na ma may waliyu aarifan bi wilayati wa adama mun fi tinati ku jur kooku li ko ko may jub boo jegee foofu nga jàll ba ku fekk ku jur góor gu sañ a wax ne ilayya qaada allahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini muy sayida maam jaara buso lu ko ko may jubal nga ñëw fekk soxna su jubal ba jur góor gu mel ni Haji Ibrahim Niass bu taxaw wax ni sallaytu subuhan bi makkatin wa dhuhran bi taybatin wa asran bi faasin wa maghriban bi kawlaxi muy maam Astu jànqa lu ko ko may jubal fekk soxna su jur góor gu donn yonent sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ñun ba xëy yëg ne ndekk ñi mu àndal matuñu ko ànd mu ne leen ala ya bani hada zamani alaykumu salaamu widaain la salaamu qudumi muy sayid alxaaj malik mu ne waqad kuntu qablu arju tey siira rufqatin waqad anna lii yasun bi nay li marumi mu ne man dama defe woon ne su ma ñëwee ci àdduna dinaa fi fekk ñu ma mën a àndal ñu dem ci yàlla waaye yëg naa ne matu leen ma ànd maa nga ñibbi nee ñu ñetti fan la ci teg génn àdduna ñu mel nii bu ñu ko jigéen yu mel nii juralee yàlla la mu amoon waaye ndax ñamu amoon ñi ngi fi incha allah ñu bàyyi sëriñ bi développé ndax guddi gi sori na te tamit borom yi xam-xam rekk fi tajee te al imaamul moo doon xas kuy woote ne xam nga ay yaa man yaddaci lfahm ilaa kam yaa axal wahm tuabbi damba wa damma wa tuxti lxata aljamm mm-hmm. amma baana laka alayb amma andaraka shayb wa ma fi nusxihi rayb wala samcuka qad samma ama naada bika almawt ama asmacaka alsawt ama taxsha min alfawt fa tahtaata wa tahtamma fa kam tasdaru fi lsahwi wa taxtaalu min alzahwi wa tansabu lahwi ka anna almawta ma amma wa xattaama tajaafiik wa ibtaau talaafiik tibaacan jamacat fiik wa cuyuuban shamluhan damma ida asxabta mawlaaka fa ma taqlaqu min daak wa in axfaqa masaaka taladayta min alham kon nag wa xafit min taraqik fa inna almawta laaqik wa saarin fi taraqik wa ma yankulu in ham wa janib saara alxadd ida saacadaka aljadd wa zumma allafda in nadda fama azcada man zamma wa naffith an axi albathi wa saddiqhu ida natha wa rumma alcamala ratha faqad aflaxa man ramma ورش من ريش حص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم مدن بني كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلم كرهت إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويعظم